ma rappelé na quoi jaajëf waay. tey gannaaw naka mu. ça va bien maa ngi nii yaa ngi doxal. jaajëf waay. copain man daal jaaro la bëggoon <laughs> soxna si saint jaaro bëgg jënd jaaro quoi yóbbu ma la place bu baax quoi. grand as ah kon kaa ñu dem. xam nga rek Saint-Valentin bi grand soxna si jaaro quoi. dëgg la as defal ko bëggoon nag jaaro quoi. bag bu nice. bag bag waaw. bag benn bag bi bel bel bel bag quoi. Hmm. na rek. surtout bii tamit. mais toog leen. ah toog leen mën nañu toog. mën nañu toog de ah rek. tout à oui sant alhamdulilah. sant alhamdulilah quoi. bii daa. oui grand bii daal. bii daal xam naa ne daal parce que ñaari laay xalaat quoi mais. soxna si la xale bi la. non soxna si la soxna si la ay Saint-Valentin soxna si laay teral. dama ko bëggoon parce que xamu pointure loxoom. Mhm. léegi dama ko bëgg woo téléphone génn ci biti woo ko comme ça mu wax ma ma pointure loxoom quoi.

non non manqué bàgguwul de. non mais xaaral moo xaaral moo soxna si. si ki dafa complet woon nest na benn bàgg. waaw na benn bàgg. si maa ngi ko si biir. non non mais non non li na ci yow. xoolal seen poche non s'il te plaît xoolal sëñ bi xoolal dama bëgg déglu ma. lii yàgg nañu arrivé fii lii suñu la. yow sàcc nga sàcc bu mag nga. te soo voleur non xoolal bu baax say poche lambali na sa poche. mais grand mais non génne ko ma xool. xoolal sama poche xaalis moo ci nekk. génnal génnal li na ay xaalis moo ci nekk quoi génnal leneen génnal génnal nga teg ah waaw. grand ni la ñuy def xoolal bu baax. bu ci yow grand affaire bi néew ci affaire bi lan. kay de bàyyi génn ah. bàyyi defal bàyyi rek. non defal nag tee sa loxo. non lii la lii foo ko jëlee. <laughs> non c' est à dire xaw ma en fait. ah c' est pas possible waaw mais gars yi waaw waaw mais. non attends moom xoolal. waa mais xaaral ah. yow numéro commissaire central yaa ngi war a woo. non grand bul woo non grand ah, non non non grand dimbali leen non dimbali grand def leen dànk rek non def leen dànk non grand def leen dimbali leen ma rek. dimbali leen non du ma sàcc

ma sàcc ko rek. jeexu ko lan mooy seebalante da ngeen may baal da ngeen may baal. bii moom. tuuti rek bu lu lu mën a am ci àdduna war dara warul koo jaral. parce que bu fekkee dañ ñoo jàppee tamit ay dof ñun ñooy dof. buñ la jox buñ la génne woon mille baag nga téye bu ci màggee xam na ko. tout à fait suturaal leen ma rek. suturaal leen ma leen ma nga te man xaw ma ko ci lii xaw ma lu mu dugal ci lii. dëgg la nit la. def naa yow laay seetee li nga wax daal yow ñu bokk nekk fii. te vraiment yar nga ñu wan mais bu doon yow kii ma la koy yóbbu central léegi. waaw dëgg la nit ki ngay def nga xam moom nga mën a wax ci rek. waaw non amul lu ñu bàyyi. dimbali leen suturaal leen ma rek suturaal leen ma rek. xool ma ci suturaal leen ma rek suturaal leen ma rek.